Salam sama gars et bienvenue sur notre chaîne YouTube Kenza TV. Comme on a l'habitude de dire, n'oubliez pas d'abonner sur la chaîne et d'activer surtout la cloche de notification pour les autres vidéos qui suivent. Taïnak, nous dañuy wax ci Paradise deux jeunes rappeurs bourrois, nous gën un l'art xam ci c'est ak dernier album nous ñu génnee intitulé Hello World ak show bu ñuy le 28 mars au CCS. Arlebrick Paradise est un groupe de rap composé de jeunes Sénégalais qui évoluent depuis plusieurs années dans ce domaine. Le groupe voit le jour en 2007. Miss Ara et Daisy en 2007 les deux gars commencent commencé ragner et dañoo de bëgg musique depuis qu'ils ñuy Du coup ils décident de fonder le groupe pour vivre leur passion groupe Akhlou Paradise gis groupe bi di a Brick trois albums premier album que ñu est intitulé Rise Génné nañ ko en 2015 deuxième album intitulé ADBD qui signifie Alcat Dubaï Doré génné en 2017 et enfin le troisième album intitulé Hello World génné le 28 décembre 2019 sama album Hello World mooy cool na nice na te dob na am na aussi différence ak leurs deux précédents albums because album bii di Hello World bëri na ay featuring surtout ak artistes yi ko defal gis nañ ni am nañ ci featuring ak Baaba Maal qui a pour titre Salam Baaba Maal nekk artiste international featuring bi nag neex na trop te jaar na yoon tamit selon moi featuring bii di Nix mom tamit nek artiste international le son a pour titre Kouli ». son bi aussi neex na trop lyrics bi tamit Krishna. featuring avec Viviane qui a pour titre Sénégal Viviane aussi une artiste internationale son bi cool na Sénégal lañ et enfin featuring avec Queen Biz qui a pour titre Yes or No Queen Biz on voit bien qu'elle a def na statistique bu baax ci 2019 bi parce que jot na ci ay trophée alors buñ seetloo bu baax Akhlou Brick ay ndaanaan kese la amal featuring ci albumum bi di Hello World en plus si biir année 2018 bi lañ bëggoon a génnee seen album bi mais dañ ko repoussé gën cee job gën cee nekk rek ñu génnee ko ci biir année 2019 bi album bi di Hello World on voit bien que ni tamit ay beatmaker yu mag ñoo ko sot job ko ku si mel ni Passabit bit et autres ñooñu ku leen xam-xam ne ay beatmaker yu mag lañ te album bi am na ay thèmes yu si initié comme Young Boy ak Ndera ak tamit benn dëkk mu doon ay titri yoo xam ni man moom ñoo ma gën a marqué te tamit ñoo ma gën a neex ci biir album bi. ci côté marketing bi aussi ak staff bi job bu lañ ci job. parce que album bi génn na presque deux semaines muy soog a ci internet bi gis nañ ni fii ay rappeur génnee nañ fi seen album ci jour bi rak tak gars yi commencé di ko partager ci réseaux sociaux yi te lu mel noonu gisuñu ko ci albumu Akhlou Brick bi di Hello World jour bi ñu génnee seen album bi nag def nañ concert bu mag à Mbour stade Caroline Faye nekkoon concert bu neex mburuwaa yépp ñu woon assisté ci ko artistes yi aussi même chose ñu doon dund show bu extraordinaire du coup ñoo ngi waajal nag concert bu mag le 28 mars au CICES première fois ñuy dem CICES mais deuxième fois ñuy dem Dakar parce que njëkkoon nañ tëgg Dakar concert stade Iba Mar Diop en 2017 cette fois nag groupe bi di Akhlou Brick Paradise CICES lañ jëm te du bu ndaw te ñoom ñëpp xàmmee nañ leen ci biir hip hop bi maanaam ràññee nañ leen parce que génération bi ñu nekk mënoo tudd trois rappeurs sénégalais sans pour nga boole ci groupe bii di Akhlou Brick Paradise seen conseil bii di le 28 mars nag aussi CICES na ko gars yi préparé bu baax waa Mbour surtout def mobilisation gaari bus yi defar t-shirt yi préparé ticket yi fans yi melomaan yi yépp ñu pare ko dem ci sës le 28 fans yi nekk Dakar tamit préparé ko ak artistes yi ñu dund show bu mag bu spectaculaire alors sama gars yi je vous pose la question ban son moo leen gën a neex ci album bi di Hello World ban featuring moo leen ci gën a marqué ak seen gis-gis ci album bi en globalisant di jégalu bu baax bu dee juum naa ci benn mot wala ma joxe date boo xamante ni c'était votre sissa Kenza lii laa leen nous tey ñu doon wax ci Paradise seen album bu ñu génnee yàggul dara intitulé Hello World ak show bu ñuy le 28 mars au CICES n'oubliez pas d'abonner s'il vous plaît sur la chaîne et d'activer la cloche de notification pour les autres vidéos qui suivent et surtout de liker la vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Peace and love.